ko dëgg-dëgg man mooy yow dëgg-dëgg jàpp ci man mooy dëgg-dëgg jàpp ci yow loolu du koo koo yëgul la mu doon xamoo la mu doon doo ko battalee Sonaida bu màggal gi teroo amul tur yitte fi mu toll Iran li ma lay jëfi màggal gi man na laataa jëfi tabaski gi taxaw màggal gi féete na côté muy doog a wax waxi tabaski boo waxee mun la màggal gi màggalu seey la màggalu ren gi màggalu seey la ku tàbbi ci màggal gi seey nga te nag tabaski mi amul ku ko wute kon nag bajaan muni nga ñaanal ko suñu borom guddal fanam waye neena na mu delluwaat di la ñaanal suñu borom guddal soo fan nga ñaanal njabot gi di teranga ji ndax moom njabot ge koy àndi sax àjjuma ñu togg ci Medina Salaam berna yu yéeme yendo doo wër fi ndul ci suba lañu depart di wër ci suba lañu yo ala fu mu mën day dem ci jambar ji waye nga am ngor lool bajaan ci yalla yalla guddal soo fan sagub islam nga sagub diine ji nga sagub rew mi nga sagub aduna nga barke sayyidina Muhammad benn bëgg-bëgg nga am muy benn vision nga am mu yëttu yalla Muhammad te nag ki ngay kenal ku ko am ndam ñu ngi leen di nuyu yéen ñi fi toog ñëpp di leen ndokkeel ci tabaski gi di leen baalu àq ci tabaski gi bàyyam continuité mais da koo def rupture continuité farata la mooy kër xaadimu rasul tey ko fa ne sëñ Muntaxa sët la te buy dem keneen ñëw yàlla na fi yàgg sama xarit la nag buy dem keneen ñëw kër Cheikh Al Hadj Malick continuité la ko fi ne Pape Serigne Mbaye Mansour suy dem keneen ñëw ñoom seen mbir dara du taxaw ak yeneen kër yi mag ñi moo tax euh, danaay dégg ci grand sëriñ benn ma invité ko fii benn gàmmu ñuy waxtaan mu ne benn paa ko ne euh, bàyyi ku mët moo gën bàyyi lu mat jabeel mu fi bàyyi ay milliards ak oto ba ma fi may doomam ma nekk nit ku wayadi topp musique bois di ba xaalis ba ne pëng bàyyi woon ma ma am jomam te bawu fi dara ma liggéeyal ko fi daraa ko gën te taaw ba yàccaaral musiba la moo tax jom rek am solo muy góor muy jigéen taxawaay rek am solo ana maam jaara bu so benn ni daf ma mas a laaj ne waaw maam jaara eh, ban siècle la woon ak fu mu dëkk ak ñaata téeméeri at laam ma ne ko mu mu ngi poroxaan gi nga naan mu falan ma ne ko yow nag contraire poroxaan moo la dal mu ne ma luy loolu ma ne ko da ngaa coroxaan yow mi xamul fi maam jaara ne mu ngi poroxaan gii fanweeri at ak ñett dong la dund maam jaara fanweeri at ak ñett te koy dugg at ak ñett ngay am fa la yam yonent Isaa li ngay dégg coow yépp yëpp catholique yi 33 ans la dund yàlla dañuy tëgg bañ am 33 ans mu dugal ñu aljana muy dund maam jaara buso ci la jur àdduna muy xaadimu rasul taxawaay rekk am solo coow li amul solo jubal rekk jubal tuuba li abdin muridin saadiqin lawumu bi xidmatin ah, aw bi xubbin aw hadiyaati xaadimu rasul nee na dara li nga bëgg ci yàlla ak li ngay wër ci yàlla ak bëgg dem aljana ak bëgg ngërëmam the Abdin. xaaj enveloppe parce que xam nga ni kanga dem du gis sëriñ bi ti sëriñ bi du ko gis kon ko lay boole mais yàlla mi leen bokk yilif mu ngi gis sóoral yàlla ti man damay wax ne muy xaalis day ràpp muy xaalis ca dus ba la jëm muy xaalis da ngay màgget mbubb nga ci jënd muy lii balaa déwén mu màgget xaalis bi ma ko jëndoon dama triyande yàlla nga ko gardé ci mas ko benn góor mu mer day xool ci ceeb yi ñuy indi Tiwaawan mu ne lu tax joxuñ ko ci ma ne ko papa loolu amul solo xanaa yëgoo oto ceeb bi bi ñu oto manqué yee ci topp mu ne ceeb wax nga dëgg di bi oto ceeb bi départ lii lépp fu mu jëm rafet na di waaye buñ ko lekkee ñu ñëpp ku ne booy dem wan lay doon amul taux amul tri amul fayf jàpp bu raxasee loxo bii lay njëkk a raxas doog raxas bi massa bopp bi tànk bi juutal lépp lépp la juutal Omar ibn Farouk mel ni Iran rekk ci ñàkk sago fii la fii la ci ñàkk sago del ni ku waay yow mag mu toll ni yow mënoo jàpp mag mu tol ni yow mënuloo jàpp soxna si di ko xool ba mu yeggal mu ne ko waaye nitu yàlla bu toll yow di wër benn garaat di sikkat te xam fu garaat ba ne loolu ko teree xam yow it ti sa garaata nga ci Égypte soo fa demul doo ci jot ci kuy juutal njàpp di jigéen moo wax Omar ibn Farouk fa garaatam ne mu dem Égypte ti la doog a jot médaille bi tëdd ba guddi benn guddi soxna si feeñu ko ni ko suba lay wuy ji àdduna teela la ñëw nga taxawuma ti jigéen la sëtu yonent bi Nafisatul Misri am na maam na fi Malick am na fi Cheikh Al moo ko jàng histoire muy sëtu yonent bu sori mu tuddee ko doomam bu jigéen ñu ko denc ba ko busiir yi seetee ca Égypte fa ko suul keroog lu ko tiim ci bàmmeelam ne dëgg dëgg dëgg yonent bi kii mooy xalifaam waristi sifaatil Mustafa wa ulumuhu wa fadlukuma lawla nubuwatu waaxidu mu ne ko sa diggante yonent bi xam nga lu fi dox Jibril ñëw ci yow moo ci dox danga amul jibril mu ñëw ci yonent bi la doon ñëw waaye bu dul jibril moom kiif kiif yaa doon xam-xamam yaa doon jikkoom xalifa Aboubacar Saddiq du xalifaam Omar du xalifaam Ousmane du xalifaam Ali du xalifaam kii moo doon yónni ji nga kilifa jikko ji la ñuy donn ak xam-xam ba da nga ñëw ci famille jabeel mag ci famille bi di suñu taawu baay yow ngay suñu caatu baay yow ngay xalifa paa bi ti kii du doon xalifa bi lu koy waral kii mooy xalifa askan wi yow yaay xalifa xam-xam ndax li suñu baay nekkoon yaa ko man lu may nëbb aw ma lu may làq ndax ku ne la nga ne nëbboo ma ko làqoo ma ko maa ne fang ne fangar ku ne ci lu la nga ne est-ce que nëbb nga ko Iran est-ce que xam nga ci Iran est-ce que faale nga Iran kan laay limaali ci li yàlla laay limaali te yàlla bëgg na li gërëmal leen ma soxna Aida santal ma ko ne ko bég naa lool yàlla mi moom lépp yal na ko saxalal lépp ak ñamu ca àndal li ci des nak na ko bàyyi ci loxo yàlla mu ngi ci kanam waaw du wax dara ci des na ko ci loxo yàlla ñaan fan nitam dana man ne jërëjëf sotti na lépp tudduma lenn Nak ndax man sénégalais laa te wax ni ku ne na doon pompier ak tailleur sénégalais yëpp nañ doon pompier ak tailleur ku gis lu ñawal ku gis fayal loolu mooy senegal fii ngeen ñëw dëkku Serigne Touba la ndax moog Cheikh Al Hadji Malick a bokk lu ci yoonu Iran du lu ñaw rafetal rek man duma parparloo parce que ganaaru kenn ma nenu ku yàlla bind ku ma sa ganaar nen amul fii ngeen ma fekk mosuma tàll sama loxo mosuma ñaan mosuma leb jaay sama radis rek lu ma ci am muurloo ko sama ñaar loxo yi mosuma koo tàlla nit mosuma seeti ko am mosuma gis ci bureau nit daara yi sëñ kër ji rek laa toog waaye nag yàlla rek laay wéttale ko nag ndax mooy sama buur ganaaru kenn nenul lu dul ganaaru yàlla yaakaaruma kenn ku yàlla ndax moom moom aljana ko ma ci yaakaar ko ko moomul xanaa man dof laa kon këru jàmbur jabeel moom kër gi ma yaakaar la pour nga fat ma ci kër gi te moom kër jabeel fat ma ba jabeel fekk ma fa waxuma weq daf may kuntaaba kon kërug yàlla yàllaa ko moom naa ko ci yaakaar góorgóorlu leen bu baax lépp dana baax lépp dana baax bu leen ko wor bu leen ko euh, def benn tappale ci dëgg rek bu leen xoolit ni borom sér la jigéen la <laughs> cër ajuwul ci jigéen góor ki bind jigéen bi góor muy séddale cër ti moo koy denc ci ka ko neex yaj'alu risalatu haythu yasha nee na man yàlla maa moom samay mbir ku ma neex laa koy def ci yow góorgóorlu leen góor góorgóorlu leen te dégg naa ci Serigne Cheikh neena njaboot gu baax du xëlamtoo kilifaam mën-mënam bu dul man doo dem su dul man doo am lii njaboot gu baax du ko def bi ci des nit ku baax day uutal ndam ka mu àndal dama ko bugaan gi dani ne ko billaay sa ndama a gënal sama ndam ndax wóolu gi ma wóolu man boo ma wóoloo soxlaatuma ndam yow laa bëgg nga am ndam ndax waaye Iran jee tax ndax wóolu gi ma wóoloo tax nit bula la wóoloo bu ko wor bu la wóoloo utal ko ndam su bisum ndam jotee ku ne di utal ka am ndam utalal ki nga am ndam te boo wéetee bu ko jëw ci safaan nit mooy sang nitam ndax du génn yaay génn ku ko xamul bëgg koo tilimal yow seetal ko ni ko xamoo ko kii mooy kii moo xam ni kii mooy kii li fi xew yépp ñu bon a ko def yàq nit ci lu dara nekkul ci moom te mënu koo waxal boppam te it mënoo wax ak moom intermédiaire yi ñooy muusiba yi nit bu doxee diggante nit ak nit day rafetal kii maag mooma ne ci daara ji surtout maam Demba War sàll mooy Abdou Sall bi ngeen dégg maamam buur la moo yor sëñ Saaliw lu ma xewlee te na wàllu Iran dem si nga keroog bu may ñëw guddee naa sonn naa man dama dul noppalu du ma effacé wu du ma noppi du ma sakkanal yàlla du wax rek parce que diini ji waxul gars yi suuxal ko ci tànk yooyu la ñu ne du ma noppi mukk ti nag du tuub ndax juumuma kenn laa dul jéggalu dëgg rek dëgg rek keroog bi ma ne déréet wàcc seetaan leen ko ci internet mu ngi ci. eh waaye Iran ñëw na waaye waaye Iran ndaw a ngi waaye bi ko seex bee koy bee cooy wax tey yàggul jeex na waaye jeexul soxna Ayda dundal na ko di ci kanamam la yéen ñëpp fa la leen fekk indi leen ko siis ñu tegal ma siis bañ paree mu ne acañ dem maa ànd moom ba ci biir néegam mu ne waay waay mu am na ñu ne maag dañoo niroo waaye kontaan naa ci loolu di suñu niroo gi ma jógee fi dem Touba di tourné ji màggal sama oto yi dem ñu ne Cheikh Béthio Cheikh Béthio ma ne waaye lii ma moom lañ ko tegoon xam nga booba damaa ponkoloon nag léegi damaa maigrir <laughs> dañ may jaawal mu ne mu ne dañ may jaawale ginnaaw waay naa ci de mais loola du tey démb la seetul ku ko ca mere du ma seet ko ma ci mere seetu ca dara ndax cofeelam kon bu soxna ay di ñëwee jaar fa borom këram jaaroon te fekkul ba muy wax ak man loolu di indi lii dama koy gërëm fu ko neex na fa yóbbu wax ji fu ko neex yaa koy filmer fu ko neex na ko fa teg kay saaga ñu tegal ko ci sidi faalewul saaga ya te faalewul Iran kon bu may wax lu baax faalewu ma kenn man réew mi pompier laa fi doon ak tailleur rek lu xottee ko ma ñaw lu tàkk ma fay lu ma fayeegul rek maa ngi ci yoon wa daa fekk tàkk-tàkk ba yaatu rek may fay di ñëw rek lu ma ñawagul maa ngi ci yoon wa daa fekk xotte xotte bi yaatu rek damay ñaw rek kon góor leen jërëjëf Aida bég naa sa borom kër sama xarit la loolu senegal yëpp ko seede moo na dem booba bu ngeen seetaanee net bi lu ma ci nit yàqu la amul xaalis sa ko fa yóbbu lañ wax man xaalis tiitalu ma de gis nii xaalis de soxlawu ma ko sax. waaw soxlawu ma ko tiitalu ma soxlawu ma ko rek laa soxla ku yor sa alal téel ku may boole nag demal boole maag yàlla kenn koo may booleel amul ndax waxuma ci turu kenn wéeruwuma ci kenn Maulana tabaraka wa taala rek mooy sama kilifa. Aïda bég naa lool kontaan naa lool. yow mi filmer tasal ba mu tasaaroo sama yoon nekku ci inter ko net ko facebook ko book ko waaw togal fu la ci neex togal tik ci neex defal waaw ah, Iran Ndao ngi nii maa wax loolu waaw bismillah jëfati Serigne Saliou Iran ñu ngi lay nuyu bu baax dama benn laaj rek woon yor sasune muy tok ay ñam di joxe mom soxna dessal yu Thioune mu jëlat liggey bobu nga xamante mom lako borom kërëm dink saa mu koy gëna doxal ba en tant que borom xam-xam rek ma bëggoon nga sànni ci kàddu ban jàngat nga am si gogu eh, mbir. ben jàngat rek la. bay mhm. señ señ bi ca fay. xam mhm. nga koy def lam daan def. Mhm. du fay mu yeen bis bu ni Cheikh Béthio bes ci yeen bu magal mu bes ci yeen tamxarit ñëw mu bees ci yéen mm-hmm. tabaski jotee mu bees ci yéen da mm-hmm. koy beesal kay kooku loolu yiw la mm-hmm. sa borom kër dëddu àdduna la mu waxtaan naa ko ci biir waxtaan la mu doon def nga di ko def uutu ko ci ku mu amoon nga jokk ko bay def lu mu daawul def bëgg nga sa borom kër tund bëgg nga itam mu tàlli bëgg nga itam njaboot gi mu bàyyi ne ah ñun que ñun bëggoon a tumuraanke waaye dootuñ tumuraanke ndax tufee gën xiif ñun ñuy tufe boole ñoom borom yi xam-xam ñuy waxtaan ak ñun ñu koy béggee loolu doy na am na loo xam ni ku waay waay sëñ bi ku am doom ju la woo tuuti deegoo looy def lu du dëkk yéy sa góor a ceeb baa ngi dox ndox maa ngi dox lépp a ngi dox nga yéy sa góor a bu ñëwee nga ne moo du ñëw ngeen mu wàcce saako ceeb bi kii doo ko ñaanal gudd fan ah yonent bi ne li gën ci àdduna yow miy laaj li gën ci àdduna mm-hmm, mm-hmm. ci aji dee mm-hmm. mooy na bàyyi garab bu féex nit ñi di te yéen yéen noonu ngeen mel. Mm-hmm. man na xamul lu ma mënta dégg. Mm-hmm. may dimbale jabel di dimbale jabel ba mu dara xew mu dem farak kooka léegi li ma bëggoon jabel nga wét sa néeg teg Iran teg ki nga faral seet ñaar ñi ku la ciy jëriñ nga yëg ne li ma Iran defal kii mosumaa defal dara te lépp Iran ma ko defal kon maa ñàkk ngor naa dellu ci Iran. Mm-hmm. waaye waaye nit njëriñ la lay doyal boppam ah ki lay defal lu la kenn defalul waaye teg ko foo tegul kenn moo tax yaa wax ne bu Cheikh Béthio dekki woon soxna Aïda du changer dara soppitoogal du changer dara ndax laf la fi nekkoon a calane mhm. mhm. ba yokk ci mhm. bu ñëpp defee noonu mu baa xam nga lii mu def tey bu ma ko defoon te yóbbu Tuubaa keneen def ko yóbbu Njaasaan mhm. keneen def ko yóbbu canam mhm. ci tariixa yi mhm. léegi indi mën moom yi nu ñu ixwatuna ñun ñu ay mbokk lu tax ñu nekk mbokk fa aslewu mooy ñam yu indi fii ma yóbbu ko fee keneen yóbbu ko feneen yéwénal googoo ñuy bokkale waaye buñ jëlee sër bi di ko xotti am ñuy juboo man koy mer meral sa mer man du ma wàlli bañee du ma par parloo su ma demee bay far ma far ak sama ndey ak sama baay du ma faral bàyyu kenn du ma faral ndeyu kenn ndax buñ dee du ma leen doon mhm. maa ngi doon rek dama yàlla tànn rek sant amul solo góor góorlu sant amul solo taxawaay am solo taxaw leen rek mhm. taxaw leen rek mhm. taxawaay rek am solo taxaw leen rek yaa jëf bég na jëf jéem rek la fi la fi yónni ndeysaan gàmm mu yónni fi gars fii la toog tabaski demee na ñëw. ndeysaan. tey yéen a ñëw. Mhm, mhm. lu xew mu yónni. ci mhm. Cheikh Béthio manoon. sëñ Saliou lu ma xewleeti Iran am na ca cër. Ah, waaw waaw. ba ma fa jógee laa dem Thiès kon ah, defoon nañ ne du ma ñëw xaajatu di Thiès. kon jàmm jàmbaar ngeen. soxna si la. ñu dalal xelam bu baax. ndeysaan. bu tëddee na nelaw bu mu ci nelaw na ca boole xaram hmm. mooy xam ne benn buur rekk fi ni mooy ki ko def jigéen benn buur rek fi ni mooy ki ko jox xéewalam hmm. benn buur rekk fi ni mooy ki ko hmm. ko jox ñu ko woon di ko jàppale ku dul kooku kenn newu fi kenn ku ne loo gën le danga koy téye boo dee sa jox jël ko kon ñu ne def baax na ñu def baax na daara yi mu koy def naa ci yëpp. Mhm. santal ñëpp gërëmal ñëpp. ndeysaan ndax nit bu la defalee da nga koy sant. ndeysaan waaye eh, nit defal la nga di ko làq dugal leen ko pour filmer. Mhm. léegi loolu bari na ci. yow bu weer dee ñu fay la sareet ki lay fay du jullit mhm. xaalis bi ñu koy defee du ñuy jullit jullit si lan nga am xarit tubaab doo ko nëbb ti bu sawee du yusu nga am sa mbokk jullit di ko nëbb man de ku may seet ci guddi jabel mu su fee guddi ba ca rek mhm. gaari oto bi di yuuxul ana Ira man su ma nekkee yow du ma la seet ci guddi du ma la oo téléphone bëccëg laay ñëw boole oote mhm. ba ñépp xam ni kii mooy sama waay mhm. waaye di dundee ci nit bi ba bés nga saaga nit ñi dañ naan waa xanaa kii du moo ko doon tagg ca coromona bi moo koy saaga nii waa kii ko mu yàlla def na ñu nga dëkkal Thiès dong nga la xam. Mm-hmm. parce que siiw nga. Mm-hmm. te siiw nga bon. Mm-hmm. man de yàlla bu ma siiwee yàlla bu ma siiwee lu bon. kon ay dana góorgóorlu. ngeen góor yal na yàlla barkeel lépp. yal na yàlla suturaal lépp. nii ngeen def ñi la ay xale ngeen. ay jeunes ngeen. seen karaw yu ñuul kukk. ci xale mën a doxal jamono. mag mënu ko. mag der kurus la man bàyyi yéen yéenay tëb yéenay wadd yéenay dal fa tànt yéenay def lu ne xale moo yor mbir mi yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla fay ne ko bég naa lool soxna si bég naa lool kontaan naa lool xamal ni Iran bég na lool dalalal sa xel lool di nga gën a góorgóorlu lool léppay baax maa la ko wax léppay baax incha allahu taala yan yàlla boole ñu jàmm yàlla boole ñu sutura kontaan naa ci yéen ay ci allahu la ilaha illa huwa alxayu alqayum la taxuzu